mbokki salam salaamualeykum man sen soppe sen xarit eh, sen dom sen frère sen sœur Ousmane Sonko may def video bu gàtt bi rek pour eh, waxtaan ak yéen saafonteeg euh yé salat sama nammeel ci yéen xam ni nu nu ko raw ngeen ñu nammee eh, fas yéene ci lu rek am lu ñu ubbi ci ay tomb ci waaye di ko doore ci félicité encore une fois suñu gaynde yi suñu équipe nationale football bi ci bégal gi ñu bégalaat démb gannaaw bi ñu ko defee ñaari weer ci gannaaw ci coupe d'Afrique bi mooy qualification bi nga xam ne mooy ñetteel ci lu mel euh, ñu war a dem fi àdduna yëpp di daje wala li ci gën a fës ci wàllu football loolu ndam gu rëy la ci Sénégal gàcce ngàllaama di féliciter joueurs yépp di leen encourager waaye di leen wax ni Sénégal kontaan nañu ci yéen di féliciter it staff bi ñi leen encadré waaye di tiire benn jàngat bu am solo mooy ñun sénégalais bis bu ñu booloo nekk benn rek soo xoolee équipe bi moo munoo ci xam kuy Casamance wala kuy waa wala kuy waa Matam wala kuy waa Ndar wala kuy wax Saloum di entraîneur bi ba ci footballeur bi gën a jeex loolu mooy senegal loolu lañ ñu bëgg a xañ nag ci at yi yëpp weesu te dara waralu ko lu dul politique waaye bu Sénégal yëpp daje amul waasoo amul fii laa dëkk ñu bokk jëmukaay am gëm-gëm amul lu ñu të kon loolu jàngat la gu rëy waaye di félicité it supporters yi supporters yi kontaan nañ ci seen taxawaay mbir mi noonu la fi ngeen ko jàpp foofu la ndax fulla fayda ak jom mooy jox nit li mu war a am te wane ngeen ko dem ba mat sëkk yéen ak lom di mat mbokk yi gannaaw loolu euh, dëkk bi yëngatuwaat na en tout cas ñaar ñetti fan yi weesu yëngatu ci wàllu wax ak ci wàllu communication te li andi mooy li ñu rëccal mu law ci dëkk bi yëpp ak bitim réew ni ñoo ngi waaj a teg loxo ci Ousmane Sonko bi coow loolu amee ba léegi gis nañ seen taxawaay gis nañ seen dogu yéen waa askan wi rawatina ne yow ndaw mi gis nañ ngeen fe feddaliwaat seen yéene ci ñun ndax bëri na ñoo xam ne jàppoon nañ ni li ngeen woné won ci jamono mois de mars té ñuy ñaan yalla bu fi mësa amati lolu nekkatu fi ba ñu yaakar ni war mën nañu wat ci lañu nekkon ci ay tapalé waye li ngeen jote fessel woné na ni tay la mbir mi gëna for ba leen di gërëm di leen sant di leen wax ni nak gog ngeen am ci ñun du jëmm Ousmane Sonko ndax amul solo ndax gënuma fi kenn judd ëpp fi kenn alal wax dëgg yàlla foo natt rek nit laa dong ni yeen geunuma fi kenn waxuma nak ni nit ñi ma du jëmm Ousmane Sonko jurom benn at jurom ñaari at yi nga xamne ne taxaw nañ ko ci ci ci ci geewu politique bi lañ leen andil ci wax ak ci jëf ci gis-gis ak ci yene lañ leen andil ci yene gi ñu am xex ba notel gi nga xamne ñu ngi koy dund ay siècle ba tay ji joge fi ba alaw rew mi ñi randal joge fi ba dërëmu rew mi delu si ci askan wi ba ci rew mi nga xamne ñu koy jaay loolu dak ba ressources naturelles yi nga xamne ñu koy seddo di ko ta Senegal amu ci dara dak yoyu ak yenen ak yenen ak yenen ñu andi te won len ci dogo gu mat sëkk loolu motax ngeen ñi xex waye du jëm Ousmane Sonko loolu nak niñ ko andee démb barki dem tey lañ ci gëna am dogo ñu leen di gërëm ci confiance boobu di leen feddi wat ni confiance boobu bu soobee yàlla fii bakkan yàlla ñu koy bàyyil du ngeen toog ba ne am nañ ci déception waaye mu am lu ama am solo mooy lu andiwaat wat li mooy nee nañu Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko moom ci boppam def na émission ne leen si ñëw ma am na nag lenn ci Sénégal yi essayé lenn ay nit yu essayé nërmal xelu Sénégalais yi naan leen dafa respecté wul institution yi moo tax mu bañ a signé ma fàttali ni gis nga institution du ab nit boo mën a téye du ab garab goo mën a laal du ab bâtiment boo mën a teg sa loxo institution benn entité bu ab abstraite la benn mbir la benn jëmm la joo xam ne jëmmoowul ci lu ñu mën a laal waaye la koy jëmmal ñaar la muy yu am solo bu ca njëkk. mooy charte yi nga xam ne moom la réew mi tëral ne institution bi ci charte yi la war a doxe ñaareel bi ko jëmmal mooy nit ñi nga xam ne teg nañ leen fa ne leen yéen a war a doxal institution bi waaye dañ koy teg ci kaw charte yi nga xam ne ay loi la ak ay règlement yu ñu wote ba teg ko bu ñu demee nag ba nit ña war a jëmmal élection euh, institution yooyu ñoom ñooy njëkk a joggati institution yooyu dafay laaj ku ko mën kuko mën wala kuko sañ nga taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen ni ngeen di def tegut yoon looloo andi situation bi ngeen gis ndax ñaata yoon la institution bi jalgati samay àq ak samay yelleef ma fàtte leen ci lu gàtt débat bi sax bëgguma ñu teg ko ci ka ci waxu institution parce que man gëm naa ni li ëpp ci magistrat yi ñu jub lañu ñu dëggu lañ bëgg def seen liggéey lañu gëm naa ni foo dem di nga fa fekk lu baax di nga fa fekk lu yées di nga fa fekk lu tane kon buñ ko tuddee institution judiciaire dama ne magistrat yi nga xam ne seen loxo jot naa dugg ci dossier bi mu dooree ba léegi nañ ko doxalee teguwul ci yoon ma fàttali leen ni bañ may njëkk a convoqué fekk man may député am immunité parlementaire dama leen di fàttali rek parce que sénégalais léeg-léeg dañuy gaaw a fàtte te ñoom dañoo yor seen communication boo xam ne dañuy essayer nërmal xelu nit ñi ma fàttali bi ñu may njëkk a convoqué maa ngi yor immunité parlementaire mooy bañ ma falee député ba pare askan wi moo ne député jox nañ ko kiiraay goo xam ne balaa nga koy convoqué il faut mu jaar fii ak fii ak fii procureur jalgati yooyu yëpp ne waa section de recherche convoqué leen Ousmane sonk bu bañee ñëw dem leen jëli loolu benn ci jalgati samay àq la ma leen ne du ma ñëw fileeg jaaru fi ngeen war a jaar yen yep yena a le 8 janvier le 8 février ba ñuy yónni seeni alkaati ñu ñew sama kër ba xex bu metti am fa ñaareel bi ñu ne dañuy yëkëti sama malaanu kiray waye jaar nañ ko ci anam go xamni kenn musul gis ci lu tollu ci ñetti wala ñenti fan ñu ne def nañ procédure bi yëpp assemblée nationale bi ko levé assemblée nationale bi yëkëti sama malaanu kiray composition bi dafa irrégulier ndax benn waa opposition toogu fa waaye comme ñoom gisuñu woon lu dul luy tëj Ousmane Sonko nañuy def ba jàpp Ousmane Sonko tëj ko ñu jalgati règle yépp ci njiitalu Moustapha Niasse ñu ne teggi nañ sama mbalaanu kiiraay loolu di ñaar ci jalgati buñ ko jalgati gannaaw ga bañ ma convoqué ma jóg di dem tribunal ñu ne ma ñoom ñoo may tànnal fan laay jaar par force citoyen bu jog yow kay soo convoqué nit toogal rek xaar ko nee nga ko 9h su ñëwul 9h nga ne ñëwul waaye dinaa la convoqué waaye fii ngay jaaree par force may leen du ma jaaree foofu ndax lañ fa tegoon ci ay piège ñëpp xam nañ ko ne leen fu ma neex lay jaare ñu jaay ma doole jàpp ma keroog gis ngeen li xew rond point Jet d'eau jàpp ma téye ma juróom benn fan ci loo xam ne jaay doole la tegul ci yoon budut woon yéen waa askan bi budul won woon wa askan bi justice bobu mo doon doon braawu pouvoir bi braawu nguur gi moy doon loxo nguur gi pour ñu sakal ma pexé tëj ma ci ay tiaxan yo xamné tégul ci yoon muy benen bo xamné amna fi nonu lañ ma jappé di ma yee ay 4h du matin forcé ma duggal ma seeni auto yóbbu ma tribunal andiwaat ma yeewaat ma 4h du matin ci lo xam amu ci benn boo xam ne respecté na procédure loolu yëpp ñu dund ko fi balaa loolu am yéen ñëpp gis ngeen sama kër moom defe naa moom ak Ukraine ñoo yemoon ñu jël ay char de pomba lu ne dem bloqué sama yoonu kër yëpp samay doom di dund fitna boobu samay waa kër di dundu fitna boobu ci loo xam ne ñoom ñoo ko imposé Sénégal yëpp teg ci bët àdduna yëpp teg ci bët ba ñu demee ba forcé ma ne léegi da ngay ñëw ñu déglu la juge ba ne day def mandat de dépôt mandat de dépôt ne day def euh, contrôle judiciaire ci loo xam ne amul dara lu ko justifié wul man dew ma fenn man dama am yéene nekk président deux mille vingt quatre dew ma fenn ci àdduna amul ku ma mun a génn ci réew mi tey su ñu yëkkati woon sama contrôle judiciaire taxul ma tukki ndax sama sécurité man nekkul ci tukki tey ji sama sécurité biir Sénégal la ne kon amul woon dara lu justifié ñu def seen mesure boobu ñu ne la naam dinañ ko nangu ñu ne ma dossier bi waroo cee wax. waroo cee yëy yàbbi waroo génn réew mi waroo waroo man leen d'accord waaye boobu ba léegi lan la ñu gis ci dossier bi may fàttali sénégalais yi nii gis nga dossier bi yéen askan wi yéen a ko réglé ndax dossier bi le 8 mars lañ ko perte ñoom définitivement ma fàttali li woon seen stratégie mooy tuumaal Ousmane Sonko gaawantu jàpp ko yóbbu ko rëbës ne. matière criminelle la ñu nekk juge mun na jël dix ans di def instruction bu boobaa yow fàtte nañ la rëbës loolu moo newoon plan bi du leneen bi ñu échecgé ci loolu lañu ñu xam ni dossier bi ñàkk nañ ko moo tax ñoom sawaruñu pour dossier bi ñu traité ko su ma leen toppoon ci la ñu bëgg ñoom dossier bi fële lañ koy teg naan le juge matière criminelle le juge mun na jël tout son temps ci diggante bi tere nañ ma ma wax man ci jamono jooju bis bu ne soo ubbee tele ñi ngi bàyyi ay sénégalais di génn di wax di saaga di xaste di dugg ci joxe ay détails yu leen neex déggoo juge wax ci su doon ay sénégalais lambda rek sax waaye ñi ma ko seqal seen bopp muy parti civile bi ak seen avocat ñaata conférence lañ fi def lu ne ñu wax ko ci dossier bi ana juge ana baro ndax samay avocat bi ñu jógee ne dañuy wax d'abord dossier 94 milliards baro moo leen njëkk tere ne leen du ngeen wax bu ngeen waxee ñu def procédure disciplinaire ba tey jii samay avocat saa suñu jugee pour wax baro moo leen koy tere ana baro jamono jooju semaine bu nekk avocat adverse bi génn def conférence de presse est-ce que mos ngeen dégg kenn ci samay avocat sama pool d'avocat génn wax ci dossier bi télé yi ak rajo yi mel ni tuleeg male ku nekk di wax ana juge bi tere ne kenn du wax ci dossier bi ñu bëgg a téye loolu nag juge wala justice warul nekk prolongation wu stratégie politique nguur gi gis nga nguur gi ñemewuñu dossier bi ndax xam nañ li ñu téye ñun ci dossier bi seen stratégie mooy bu ko kenn traité nañ ko bàyyi noonu Sonko tënk nañ ko mënul def dara bu ko defee nag ñuy wër di wax di xaste di saaga lu nañu koy def moo tax ma ne leen nag benn instant dootu ma leen nangut loolu looloo indi sama sortie bi ma def temps yële sorti bi nag dama cee wax lu leer dama fàttali sénégalais yi yenn mbir bu ma ci jógee dama ne maa ngi yor sama passeport man maa buggut a tukki ndax intéressé wu ma ñi ma xam ñëpp depuis longtemps xam nañ ni man su may tukki sax dañ may forcer farata moo mën a tax ma tukki waaye man duma koo xam ne dama sopp di wër di tukki ñaareel bi may leen signéetuma ndax niñ ma bëgg a këll këlle juge bi ñaata la ko samay samay avocat bind ay bataaxal benn yoon la ci musa tontu mooy gannaaw bi ma génnee ba def sama sorti boobu la doog a tontu yeneen yëpp musuñ cee tontu te loolu nañ ci dellusi bu ñu duggee ci biir dossier bi looloo indi woon wax ji bi ma koy wax nag dama am ci jublu woon mbokk yi la ma ci jublu woon mooy dossier bi il faut ñu traiter ko tout de suite et maintenant dossier bi du lu ñuy téye dossier bi du dossier bu compliqué boo xam da nga war a dem jëli ay témoins yu nekk bitim réew ak nangam nangam déedéet. dafa jot ñu traité dossier bi vidé ko ñu xam fuñ jëm ñoom nag ñoo ñemewut dossier bi ndax nekk ci rajo yi di wax ak li xew ci biir bokkul de am na lu bëri loo xam ne duma ko wax fii waaye buñ ci tollee di ngeen xam li ne ci dossier bi moo tax ñemewuñ ko la may ñaan askan bi mooy bu kenn nangooti ñu téye dossier bi di ko laam-laamee naan tey suba instruction bi instruction bi jeex na daanaka

kon ça veut dire que mënoon nañ ko def bu yàgg man li ma bëggoon am naa ko mooy dossier bi na yëngatu semaine passée bi ma samay avocat woowee ne ma jokkoo nañu ak juge bi wax nañu ak moom nee na nañu waxtaan pour xool kañ la ñuy def sa audition dama leen ne du ñu génn semaine bi ndax maa ngi ndakaaru lundi laa war a dellu Casamance waaye mën naa sax annuler sama billet bugguma ñu génn semaine bi proposer leen mardi moy mardi démb bi suma ma sañoon na ma déglu mardi bobu ñu avancer dem nañu ba ci bir demewut nonu te li liko té am ci jus bo la jóge wayé bi ñu demaatee ba ci bir ma ne samay avocat proposé na leen semaine bi di ñëw le 6 ñu def audition bi ba tay amaguñ ci réponse waaye li am ba des moy gis nañ ni juge bi ma ngay def léegi li mu war a def ci dossier bi ma ngay jokkoog suñuy avocat gisee nañu benn yoon ba waxtaan ba pare am na lu ñu tënk ci lu ñu war a doxal jàpp naa ni man la ma bëggoon ci dossier bi am naa ko kon dégg naa seeni mbébét nit wooy na ma fu ne kilifa gu ne woo na ma nit ñu bari woo nañ ma doonte xam nañu lu waral sama taxawaay dégg naa seen bébét boole kook li ma bëggoon man am naa ko mooy tey dossier bi mënatul yàgg ci loxo juge bi jàpp naa ni sax ci fan yu néew dina ma déglu instruction bi bouclé wu ñu xam fu ñu jëm ak dossier bi kon jàpp naa ni amatul une raison pour que acte yi nga xam ne posé waat naa posé woon naa ko ma continuer ko bu ñu defoon safaan wit ma téye fi ma téye rek ndax man bi may posé samay acte dama ko natt nattaat ko xam lu ma ci mën a fekk xam les conséquences parce que noonu la nit di doxale noonu la kilifa di doxale lu ñu def rek pare naa ci ba noppi waaye comme li ma ci bëggoon am naa ko bu soobee yàlla semaine prochaine bu ma nee cëpp ndakaaru incha allah la ma ci war a def yëpp naa ko def ndax ñun fe wàññi institution judiciaire taxu ñoo jóg amuñu problème ak institution judiciaire am ñu problème ak magistrat yi waaye bu amee lenn ci magistrat yoo xam ne dañuy doxalee méngowul ni ñu war a doxalee magistrat nag nit la dong magistrat jox nañ ko cër torop waaye nit kese la comme man comme yow comme keneen day juum day tooñ day def naka sudul noonu donc su loolu amee dafay baax ñu ne ko ah attention ku bëgg ku respecter dëgg nag institution judiciaire noonu ngay def ndax loolu mooy dimbale justice muy xoolaat boppam di remettre boppam en cause may wax nag ni bu dee woo nañ ñu te gëm naa ni ci bés yu gàtt la yéen samay soppe yéen askan wi jarul kenn di génn ndax audition kese la jarul kenn di génn naan maa ngi dem tribunal maa ngi def li maa ngi def li dossier ba lañ ca yor yor nañ ko ba noppi dossier bi dafa vide amul dara wax naa leen ko keroog Il gis a Ousmane Sonko ci dossier bi ni mel amul wër di saga mo fi des waye dara amul ci dossier bi kon jarut di genn jarut di di dem tribunal waye rester mobilisé moy fi ngeen tek sen tank len ko fofu te deglu len parce que fi la ñi doxal yoon ñu doxal ñom ci yoon waye buñ ñu jaay doole ci lu la résistance est un droit bu buñ la bëggee jaay lu dul doole ci lu dul dëgg constitution moo la may nga résister bu boobaa la ñu war a wax ak yéen dinañ ko wax buñ ci tolloo kon loolu moo ne woon kàddu yu gàtt di leen gërëm di leen sant di wax ni soyez heureux vivez bu leen kenn stressé bu leen kenn teg lu mu leen warul teg àdduna bi du dara te koo fi gis ak maqaamam nu mu toll nit dong la nit njaay boo xam ne day dund bu àppam jeexee mu dem bu leen ragal kenn kuy nit ni yéen loolu yab yàlla la waaye bu leen tooñ kenn bu leen njëkk a dóor waaye am ngeen sañ-sañ bu ñu leen dóoree bugg leen jaay doole ngeen defaan seen bopp ñu leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu